mouvement ànd dooleel Abdoulaye Sylla yegsi nañ fii ci Touba Belel ngir gaaral seenub liggéey askan wi dëkkee si diwaan bile gannaaw teertu gu ama am solo askan wi dëkkee fii si Touba Belel ñu ngi dalal seenum xel ngir fa seene jàppale ABS coalition and defar Sénégal li nga xam ne nii moo taxoon tey jii ñu toog fii bëgg jàkkaarloo ak yen ak képp koo xam ni ñëw na fi muy soxla buñ lay diis mooy ku ñu jàppale ndax ay jigéen bu nekkee ci dëkk dëkk bi amul liggéey amul benn bërëbu liggéeyukaay buñ sañoon ñu investir investir mu ñu investissement boo xam ne ñun dinañ ci mën a boole ak li nga xam ne moom la ñu fekkoon waa dëkk bi di ko dund ñu mën cee avancer jëm ci kanam dëkk bi gën a avancer. parce que Belal boo xoolee depuis Belal ba léegi fii Belal toll Belal mënoon na ko weesu mais depuis boobu ba léegi ñoo ngi ciy dox mais ba tey gisuñu ci avancement loolu daal moo taxoon ñu ne képp koo xam ne ñëw na fi wooñu yitte yoo nga xam ne mooy suñ yitte den la ko jàllale pour ku ci mën a jàpp rek ak noo ci mën a jàppee. bu defee ñu xool nu ñuy àndee ak yow liggéey pour Sénégal jëm kanam euh, élection yii nag moo xam ne moo leen yëkkati muy élection législative kenn képp ku nekk sénégalais rek xam nga ni euh, assemblée national mooy dox réew. parce que bépp loi boo xamee seeni nii yëkkati nañ ko loi boobu noonu pour mu jàll dañ ko yóbbu assemblée national président du jug rek ni assa lii day jàll keneen du jug ni lii day jaal dañ ko yóbbu assemblée dañuy voté ay nit dañuy toog ñu ni benn ñaar ñett ñeent bu ko defee. ñu xool loi boobu noonu bu fekkente ne majorité bi kii na ñu jàllale ko kon muy élection bii ñuy waaj a def muy élection législative kowalition ànd beesal Sénégal ñëw uy suñu ñu ngi nii waa coalition ànd beesal Sénégal ñoo ñu wuy suñu di wut ñoom tamit ku leen jàppale pour ñu nekk en majorité assemblée national pour soxla yi nga xamante ni ñoom leen leen diis fii bis bu ndemee ba toog assemblée ñu man ñoo gees jeunes yi dëkkee sii diwaanu Touba Belel ñoom daal nee nañu yokkateeg dëkk bi rek mooy seen yitte ba tax na bokk na ci seen ay doléance ñuy sàkku lu si mel ne ay matériel ngir man di amal ay seetetal bu baax a baax si dëkk bi waaye nag fàttewuñu benn yoon lu jëm si wàllu tàggat yaram gi ñuy amal si dëkk bi ñuy sàkku ñu jàppale leen ci bu baax a baax ñun seen si dëkk benn bopp lañ am ñu xel ñaar ñun ñëpp benn lañ foo ñu foo ñu gis boo amee kii am nga ñeneen ñun nag suñu soxla mooy leen ku ñu jàppale si dëkk bi mu avancé ndax avancement dëkk bi mooy suñu njëriñ leen nag dama koy wax man nekk si dëkk dëkk bi foo jaar tourné gis dëkk bi mel nii loolu du rafet du sagu dëkk bi premièrement mooy am nañ tëli bu rafet tëli bi macha allah rafet na mais tëli bu rafetee foo jaar gis suuf si biir tëli bi amul njariñ kon nag suuf si dafa am lu ko war a dindi muy matériel matériel yooyu ñoo ngi leen di ñaan saf nañ leen ko daal ngeen defal ñu ko ñu amee ko nuñ ko bëggee sunu soxna yi macha allah am nañu ay mbootaay yu bari jàmbaar lañ. ñoom nag matériel mooy liggéey ab dëkk mooy bale mooy def lépp matériel nag lu koy def mooy seen kees yi defu ko nit nag bu amee ku jóge dëkk ak dëkk ñëw yaakaar la pour nga jàppale ko ñun yaakaar gi ngeen am si ñun yàlla nañ ko mottali kon nag ngir yàlla li ñu am si yéen yaakaar ngeen am si ñun bu ngeen ko mot buñ ko mottalee bu ngeen demee ba àgg fa ngeen jëm ngir ñun ak ñeneen ak ñeneen ngir yàlla bu leen ñu fàtte ndax dégg naa nag ñu naan politique moom puus oto bu oto bu paan la mu dem puusul mu dem boo ko poussé nag bu demee moom gestu na la taalal na lox ni la jërëjëf bu ngeen ñu def noonu waaw beneen bi nag mooy ñun ay sportif lañ dañuy football rek la ñuy def si dëkk bi ngoon maa bi terrain la ñu waroon a fekk si faal mais moo tax ñu dagg ak seen jëmm ji kon nag ñun li ngeen ñuy jàppale mooy wàllum football bi rek école bee ñu nekk di fa jànge tamit bu ngeen ñu si jàppalee ñu jël ndax ay toilettes manqué nañ ko lool professeur ak élève bu ñu demee bay bokk ay toilettes c'est pas normal kon nag foofu ñu fa jàppalee ñu jël sama yaakaar ji ma am ci yéen mooy ñu taxawul ma waa dëkk bii te yàlla tax loolu nag sëñ Abdou Khoudoss ci sa loxo laa koy teg ndax dëkk bi ko koy defar yow lay dimbali am déet sab dëkk sab dëkk dëkkoo fi da ko moom ndax jataay bii ñu toog yaa fi sëriñ Abdou kon yaa moom dëkk bi ku la féete magit bu dikkee ñu jébalaat ko nga jébalaat ko waaye ñun moom fi jataay bi yow lañ koy jébal kon nag lii mbooloo mi ñaxtu dégg ngeen ko yéen nag lii ngeen am ci ñun yaakaar yéen it nañ fexe ba bulletin bii niñ ko waxante woon ma wax leen ni noonu laa ko waxante woon ak soxna si dana fi yabal ay ndawam ñu ñëw dama koy yeesalaat seeni nopp ñoom lii lañ am soxla ci ñun ngir li ñuy am ci ñoom soxla ñu ñu ko saafaraal lii nag la 17 képp kuy dem na ko ngànnaayoo maam Góor Mbay moo yore kàddu mouvement ànd dooleel Abdoulaye Sylla bu Touba mu ngi xamal askanu Touba belal nii liggéey bi daal jàpp leen nii Abdoulaye Sylla mu ngi leen ci tàllal loxo ngir ñu ànd defar Sénégal délégation bi ma àndal nag sëriñ Abdou Khoudous Mbacke moom sëñ Seexuna Abdou Lahad jiite ko ak sëriñ Jili Ñang moom sëriñ Saaliwu sëriñ Seexuna Fall soxna si moo yebal délégation bi pour mu ñëw belel li ko waral nag mooy moom léppam day belel lépp lu muy def beleel la ci jiital ndax fii la am mu ànd ak rakkam càmmiñam doomam muy Abdoulaye Sylla mi jiite coalition ànd beesal Sénégal ci élection le 17 yii kii nga xam ne moom la soxna si àndal nag muy Abdoulaye Sylla moom jëfam dafa weesu sax dem assemblée di leen fa kaasal dara soxna si daf leen a boole candidat bi nga xam ni moo gën ci candidat yi lan moo tax moo gën ci candidat yi mooy day candidat boo xam ni lépp lu ngeen di jooy fii ci beleel su ngeen ko jàppalee ba mu am majorité du ci xaar kenn du ku leen di booleek état sax muy faj seen yitte moom moo koy defal boppam te it bu fekkonte ni ku leen di nax la soxna Astu di ko fi yabal te bu ko bu bu nu fi yabaleet du sëñ Abdou Khoudous mi du ko jiite moom Abdoulaye Sylla bii am na yéeney Touba ak li ko wër muy dix mille mbootaay di fukki junni mbootaay yoo xam ni da leen di financé muy jigéen ñi kooku nag su fekkente ne am na yéene jooju te lu jiitu yéene ji mu jëf ci Touba lu ne daanaka Touba ci fukki at yi ñu génn at mu ne su ma ko doon totaale dama lay wax ni la at mu ne def na fi milliard te demul assemblée nationale kon kooku su jógee ni dafa bëgg a dem assemblée nationale li war nit ñi mooy ni ko kat ensemble sax xeeb nañ ko waaye yow dañoo bëgg deux mille vingt neuf ñu yëkkati réew mi teg ko ci sa loxo kon nag yéen jigéen ñi dégg lu nañ seen doléance yi ngeen wax yëpp waaye nag wolof dafa wax ni loxoy kajoor day weesaloo nit ki su fekkee da nga yaakaar ci moom dara mu yaakaar ci yow te lim yaakaar ci yow di une semaine da ngeen di fexe ba bu dimanche mu seen xolam sedd ci yéen ndax politique gu léegi kat kenn mënatul ndax kenn de. ndax moom mënu leen a nax ndax bu élection yi jàllee yeneen élection day day ñëwaat taw dana fi ñëw kon su leen naxeet da ngeen daje waaye yéen it na ngeen xam ne bu la di 17 jàllee ca ngoon dinañ wàññi carte yi lu mu am beleel dina ko xam kon mënu leen a nax mënu leen koo nax ñaar ñu mënta naxante nag li war li war ñoom ñaar ñëpp mooy kenn ku ne góorgóorlu ci sa morom kon daanaka kàddu yi loolu rek la soxna Astou daal mi ngi ñaan bu la dimanche ngeen ànd. votel Abdoulaye Sylla ànd beesal Sénégal coalition ànd beesal Sénégal ndax moom amut lu dul yéen kon nag kàddu yi jërul muy gudd euh, ñoo ngi sant it fàllu Galass Sylla mi nga xam ni dafa jël sitam bi yëpp muy teleem bi ak lu ca war jox ko euh, soxna Astu mu ànd ak Habib mi mooy muy muy mooy caméraman bi nga xam ne fu jëm mooy ànd ak ñun sëñ Abdou Khoudous mi it moom sëñ naa depuis yëf yi taxawee ba léegi mi ngi ci ginnaaw soxna astu lu muy def mu ànd koog moom moom it na ngeen ko ñaanal mu gudd fan te ànd ak wér mu am téeméeri at yoo xam ni doom am benn ordonnance jërëjëf sëriñ Jili Ñang kàddu yaa ngi noonu jërëjëf sëñ Cheikhouna jërë ngeen jëf